asalaamaaleykum Sénégal sénégalais yi fu ngeen toll ci àdduna around the ndar ndar baa ngi nii toog moom la de Khadim Gueye la nuyu la ziar la fa nga toog ñëw fa fekk la jox la juróom yii jox la sa wàccuwaay wala sa yéeguwaay yaay xool bu la ci neex nga jël ko j'espère que Noël yi euh, passé ngeen ko bu baax gis nañ euh, Dakar sénégalais yi ah, suñ mbokku chrétiens yi def naa ne macha allah kontaan nañ bëgg nañ voilà loolu tamit daf ci baax voilà. di euh, chaque année loolu di ñëw di ko ñaanal ñëpp rek euh, ñoom ñëpp vraiment di ko ñaanal Sénégalais yëpp ñu teewee ko déwoon yu baree baree bare ni leen waxe woon joyeux joyeux Noël ñu renouveler waat ko di leen anticiper li nga xam ne si mooy euh, fin d'année bi di ko souhaiter di ñaanal ñëpp voilà képp ku gis vidéo bi yàlla boo manqué déwoon nga fekk ko yàlla bàyyi leen fi bàyyi ñu fi may ñu wér ak tal voilà ñu fekke ko déwén yu baree baree baree bare defe naa Noël bi jàll na ni ñu ko waxee suñu mbokk chrétiens yi kontaan nañ euh, ànd ak suñ mbokk jullit yi nekk Sénégal yépp ah, ñëpp tam feete ko ci jàmm ak salaam defe naa loolu mooy li am solo voilà donc tey dellusiwaat nag euh, comme ni ñu koy defee d'habitude parce que xam nga sama gars yi ñoom dañoo wex à point que il faut hein, ñu jappalé ba jaxate les lég quoi <laughs> xam nga bi dafa nous parce que ñi dañoo sonal nit ñi dañuy sos sos sos sos te Nous manipulation yi ñu doon def 2017 ba manipulation yi ñu def ba nga xamné élection législative yi passé gis nga maire ñu len falal tay Nous képp maire buñ ci nous ñëpp ñu ngi lu ñu xam ngeen vidéo bi passé maa leen tegal euh, Magita muy muy muy muy ki nga xam ne si mooy Ahmed Aïdara waa Géejawaay xam nga dindi liggéeykat noonu ko Magita waxee ah, teg fa waxkat ñii ay waxkat lañ kese voilà sos manipulation defe naa ne euh, élection législative yi sénégalais yi nga xam ne élection yii présidentielles yi nga xam dafa sérieux jël réew nekk président dafa nekk loo xam du ay jaaxaan du ay kaf du ay fo donc euh, xëy na yàlla moo xam lu tax mu mu jiitaloon élection yi may leen ci doole jooju pour won leen ñii di wax ci guddeeg bëccëg waxkat yi duñ ay liggéeykat ah, lan lañ capable ak lan lañ capable ñii daw nañ ñii gis nga ña nga ci ay lune de miel lijjantiwuñ population yi nga xam ne naxoon nañ leen bañ votel leen donc élection yi di ñëw sénégalais yii may xool surtout la majorité silencieuse gis ngeen li xew xam ngeen ñii ils sont pas capables amuñu capacité yi amuñu xam-xam bi amuñu lenn lu dul jógal ma toog defe naa nag mën nañu ca assemblée leen yóbbu bii nag da ngeen di choisir koo xam ne moo war a gouverner Sénégal pour juróomi at donc na ngeen bàyyi xel. ci nax ak fen ak sos ak kàcc si ñu leen def ak manipulation yi ba tey ji ngeen yóbbu leen ci assemblée be lañ fa naroon amut assemblée de rupture lañ fa doon wax dañuy ñëw gis nga buñ leen bàyyi woon ah, yëfu golo yooyu ñu def au début weq jigéen ñi dóor fii saaga arraché ay microphone du n'importe quoi ah. mais heureusement bi nga xamee ne waa wàllu ah, dem nañ ba état bi gouvernement bi ministre yi fa ñëw seen budget yi euh, ñu voté ko parce que ñee ñoom yàq rek lañ soxla woon comme niñ mën a nekk di taal ay berte taal ay car yàq lépp loo xam ne si ay université tu te rends ñu dem taal yooyu yàq ko ñooñu ngeen jëloon fal leen ci assemble bi buñ leen nax nag parce que wolof nee na kët ngeen jéggal ma ci parole bi gis nga caga boo ko naxee ñaari yoon da koo neex kon nak na ngeen xam seen carte boobu kan ngeen koy jox président mënul nekk mënu leen ko teg surtout situation bi Sénégal di dund actuellement sous région bi gis ngeen li fay xew gis ngeen menace terroriste yi ak lépp gis ngeen yi leen journaliste yu mag yi ñoom Cheikh Yérim ñoom Mousbaan ñoom jambal Diagne li leen tegal fi wax leen ko muy lu wér loo xam ne état moom mënul toog di wax mais ñooñu ah am nañ parole yoo xam bu ñu waxee seeni wax ah jàllu muus la lu leer la jox nañ leen indication yépp nag bu mu leer li ci des nag mooy yow mi yor sa carte électeur bi kan nga koy jox ndax da nga koy jox ay fenkat ay soskat ay manipulateur wala da nga ko war a jox koo xam ne si la gannaaw son excellence le président Macky Sall renoncé na ci li nga xam mooy deuxième quinquennat ndax bëgg jàmm voilà mais bu sañon rew mi dañ ko tek ci loxo yo xam dana melni mi ngi won ci ay loxom lolo tax ah, koku mu tan di amadou ba tan ko par hasard tan ko parce que daf ko sympathique tan ko parce que dafa rafet tan ko parce que parce que parce que parce que mais dafa xamne suma joge fi man hmm, il faut ma jappelé yéene sénégal yéene ji ma amoon te ko meuna a hein pour bëgg jàmmi sénégal tax ma renoncer ci hein looloo tax ma tànnal leen kii donc képp ku ci yor sa carte électeur ngir yàlla rappelewul élection législative yi dem leen maire yi ñu fal yëpp yu ex Pastef yeeg waaye Yewwi Askan bi xool leen benn maire bu fa def dara fépp fu leen faloon ña ngi cay jooy ba ci leen jiite woon di Ousmane Sonko moom gis ngeen ko Ziguinchor boobu ban njariñ leen amal bañ ko falee ba léegi wax leen ma ko gis leen ko du benn action boo xam ne am na fa lenn daal la fa def Auchan bi mu leen doon tàlloo ak Mayus Guy Sagna hmm? Auchan boobu la dem ubbi ko Casamance Ziguinchor loolu daal mën nañ ko ko tàccoo waaw waaye na leen wax na ngeen fàttaliku Auchan yeneen yañ taal ak doomi sénégale ya fa doon liggéey ñoom ñëpp tey ñu nekk ci chômage waaw liñ doon bañ dem moom lañ nangu tey Ziguinchor lañ ko defee de waaw xanaa Auchan waroon na am fu ne ci àdduna ba mu des Ziguinchor fañ fale Ousmane Sonko. fale fa Marius Guy Sagna bi doon juuxu France dégage di n'importe quoi moo leen di wax ne ñi ay perroquet lañ ñi duñ nit ay samba booy lañ yu tekkiwul dara donc seen carte bi jox leen ko ku wóor Sénégal teg leen ko ci loxo yu wóor xool leen liy xew ay Ukraine xool leen liy xew Israël bu ngeen di dem ci YouTube bi wala ci Facebook bi wala ci TikTok bi dem leen di jël image yoo xam ne dañ leen woon liy xew foofu ngeen xool population yi lan la ñuy dund actuellement waaw pour am ay miss mburu rek bo yobbu sa keur da nga rang 1000 personnes ñew rang pour jënd miss mburu duñ ko gis damal ci sous région bobu dekk yoy yu mel ay Guinée ay Mali yi leen doon wax ay Niger yi leen doon wax nana ah, gouvernement yi ne woon ñu nañ ko jox armée bi nañ ko jël tay ji lan la tay lañ gëna a tay lay gëna nekk ci ay problème te militaire yooyu ba ñu nangotu ñoo wacc pouvoir ba donc est-ce que yow mi yor sa carte est-ce que yow mi bëgg Sénégal est-ce que yow mi bëgg hein di nga nang lool di am sa réew diko jox ay nit yo xam amuñu xamuñu dara musuñoo def lenn ci aduna ngeen tegg ko ci ko xamné ne gis ngeen prestige gis ngeen blason international bi nga xam ne son excellence le président Macky Sall am na ko Macky Sall def na Sénégal toog Mo moo leen gën a yàkkamti dem de pour ngeen xam parce que nit ki nee nañ bala ngay xam njariñam mu wan la ginnaaw waaw feeg ma nga fa du ngeen apprécier mais après foofu la rëcc bi nekk bu leen fexe leen nag bu leen fi toog rëcc comme lu ngeen di rëccoo ay dara Aïdara ca Géejawaay wala ngeen ay Maykoor hmm? ma daw ne ca xaw euh, ba fan wala Ousmane Sonko muy fal ca Ziguinchor lii dafa naa doy na exemple yàlla won na leen bala ngeen di tànn voilà léegi nag ñi nga xam ñoom moom ñoom la ñu àndal toujours di xeex ki nga xam ne mooy président ak lu takk ci moom sos yi ñuy def du matin au soir depuis des années am ci waajoo xam ne moom <laughs> vraiment moom moom dama ko fan parce que pour benn motif parce que bu doon euh, lu ku ñuy jam la ma ne dafa tul waaw fen na fi ne Marème Faye Sall dafa feebar ma nga ca pale ba xamul lu muy def day taxawaal ju day dox ñu dem di ko jàpp di ko ëddi n'importe quoi ah non kaayis foofu pookal la quoi léegi dama mu ngeen déglu kaayis foofu ñi nga xam ne si ñooy supporter Ousmane Sonko biñ naan day bokk par force déposé na ay fichier ah waaye nag CDC <laughs> moom hmm? trente millions ya rappeloo leen delloowaatu nañ leen ko ñoom nee naa la dañuy jaaxaan di saw seen bopp yéen ñi may bind yëpp di ma laaj dana bokkam du bokk pour man du bokk voilà te won na leen ko démb fexe nañ ba ne nee dugal nañ sa déposé nañ dégg naa Pape Moussa Sow la xaw ma fenkat boobu nga xam ne moom mooy gën a taal Sénégal ah. day fekk ay fen ah, mu ñëw di jaay ne moom xam na droit xam na lii xam na laa mais ji ma réparé fexe ba rof Ousmane Sonko da ngeen ñu wax fan lay jaar démb dégg naa leen ci sans limite ña <laughs> ngay def seen ay date di calculer moo euh, conducteur bi ah ne les kon c'est déjà parti parce que le 12 lañ départ non c'était le 17 gis nga l'avocat de état bi ñoom <laughs> xam nañ date bi donc yooyu la ñuy ñëw di ko wax nit ñi ñu koy gëm te nit ñooñu bu ñu gëmee loolu xamuñu ci dara dañuy dem di révolté wu quoi gratuitement donc ay genre Pape Moussa Sow yi lu tax ñu leen di bàyyi ñu ne ci télé yi di wax c'est ça jël leen ay juriste dëgg ngeen laaj leen lan mooy dëgg bi ñu wax ko ah mais juriste boo xam day ñëw di fen di sos xamul sax dat yi xamul sax kañ lañu atté woon ba mën a calculer les fameux jours là tey la 26 six nañ xool ndax Ousmane Sonko lañ bokk nañ dem dem na déposé bokk na ok yéen ñi ko gëm bu ko gëm acca jaaxaan nee naa li saw sa bopp lay wàcc ñu déglu kaayis foofu pour wax la ñii ànd ak Ousmane Sonko ak ñii ànd ak ay yu askan bi say rakaay la ah dégleen lan la ñuy wax suñ kilifa diine yi déggal ki lu muy dégagé ah ci Cheikh Mahi Niass li koy wax koo il a 4 millions de talibés dans le monde ko xamné khalis du problème ci dafa nané mom ak seigne muntaha mi bëgg dal fi buñ soxla won des milliards hein du problème du ko nek ci 24 heures dañ koy am waaw gamu ñassen bi gis ngeen fune la avion yi ñew ba xeyna dañ leen defal aéroport sax kaolak pour que ñu mënd di fa wacc koku la sagar nit yi ñew di disrespect ndax dañu waron wax ci Ousmane Sonko quoi ku sel ki ki ñi woyé ya, ku sel ki mel na ñom seen problème yalla leen wacc ci aduna pour que tëye nañ Ousmane Sonko dañ ci wara wax par force kenn ku ne am sa reewande hein eh, ñëw di tek ci suñu kilifa diiné yoyu ak seen ay soxna dégg leen li muy wax accuse koy def ak liaison bi muy wax ci eh, soxna ce eh, kilifa gi ah ak ak Marème fay Sall ak ay di n'importe quoi xol li ñuy tek li wa pastef diko ex pastef diko deg ni and ak ñom te freiné wuñ len def ñu ci dara ludul di len bay ñu manipuler ni pour ngeen jël sen vote yi jox len ko ñu am jité rew mom ubbi sa nopp nga deglu xamam mu la wax dogal documenté ñu xol <laughs> son excellence kaif of après ñu del ci wat des choses yo xamanteni mënatuma ko muñ amna ay information yo xamanteni yag na ko yor ay nit dima ñaan bu ko wax bu ko wax bu ko wax tay dina ko wax voilà tey dinaa ko wax damay commencer ci Mahi Niass sëñ Mahi Niass sëñ Mahi Niass Macky Sall fu mu ko téye dinaa leen ko wax tey soxnam bu tudd Diaw Ndiaye soxna sëñ Mahi ñas bu tudd Diaw Ndiaye Diaw Ndiaye boobu la Marème Faye Sall tabaxal kër R plus 2 tabaxal ko kër R plus 2 ba pare di ko jox ay garde jox ko oto jox ko ay milliards yoo xamante ni daf ko dugal ci fausse fondation boo xamante ni jaww njaay boobu noonu ay milliards la yor ci fondation yoo xamante ni Marème Faye Sall moo ko ko financé moom ak soxna Baali Muntaga moom ak soxna Baali Muntaga fii la tee xalif général des Mourides yi Touba ak ak ak ak ak ak ak yi fondation Marème boobu rakkom ñoo nekk fondation soxna Baali Muntaga beneen rakkom nekk fondation Jaw Njaay jabaru sëñ Mahi ñas fu mu téye sëñ Mahi Niass c'est parce que dafa nekkoon ci oto jabar jaw njaay boole ko Marème Faye Sall police yi dem kar oto sëñ Mahi Niass fekk fa yambaa bu dul jeex fi lii moo tax sëñ Mahi Niass waxatu tey dinaa wax lépp parce que dama commencé sonn ci naafiq bu am ci biir réew mi tey léegi dinaa ko wax dinaa wax lépp lu ma xam léegi sëñ Mahi Niass dañ ko jàpp ak yambaa bu bëree bëree bëri boo xamante ni jabaroom jaw njaay bii moo ko ko jaay moo ko jaay Marème Faye Sall ñu woo Marème Faye Sall direct policier yi woo ko Jaw Njaay ne ko li ma la waxoon mu ngi noonu kilifa bi jàpp nañ ko ak yàmba wax naa lii mooy addiction lii mooy péché am Marème Faye woo gendarme bi ne leen bàyyi leen ko mu dem buñ ko jàppee ci yàmba boobu noonu ba léegi sëñ Mahi Niass nangatul wax jabaram Jaw Njaay bii moo ko jaay parce que lépp luy information bu jege sëñ Mahi Niass Jaw Njaay boobu moo koy wax Marème Faye Sall parce que fondation la ko jox versel ko ay milliards tabaxal ko keur jox ko auto lepp lu mu soxla ci àdduna mu koy defal chaque année mu jox ko ay visa deuk bu ko neex mun na fa yóbbu ay 10 personnes léegi visa yi mu koy jaay jël diko jaay dina wax lepp parce que dañoo commencé sonu parce que junj nañ junj nañ ngeen ñuy dëkkaloo fu ñu dëkkul léegi lu ñu xam yépp ci information dinañ ko wax Bali muntaha c'est la même chose chaque année dañ leen di jox plus de 10 visas muy France muy Amérique muy États-Unis muy Angleterre 10 visas yi ñu koy jàpp di jaay

wako ma wako wako wako wako wako wax ko wax ko wax ñu téye fa paay lii ben tax pa waxatul ci biir réew légui dinañ wax nak légui dinañ wax parce que buñuy wax yag nañu ray affaire mais parce que légui nit ci dañoo sonn ci naafeq bu am ci réew li motax ben pa ben serigne du wax ci Sénégal je vais vous dire toute la vérité aujourd'hui li motax ben serigne du wax fi lañ leen té sen ay soxna ñoo leen jaay ak Jaw ñoo jaay c'est ça la vérité c'est ça la vérité ay ay sàcc yu c'est une fondation yooyu boo leen ko auditer lépp lu ciy milliard Marème Faye Sall moo ci versé fii lañ leen téye ay service de renseignement Macky Sall ak Marème Faye Sall lañ Diaw Ndiaye ak Bali Mountakha Diaw sa cœur, sa adresse lépp dinañ ko joxe pareeguñu de dañuy joxe début information li ci des dinañ ko complété.

waaye léegi lépp dinañ ko wax puisque da ñu dëkkaloo ba pare fu ñu dëkkul léegi lépp lu ñu xam dinañ ko balancer Sénégalais yëg ko fii la ñu téepaay seen vies yi yëpp yambaa bi ñu jàpp ci oto Mahi Niass moo tax Mahi Niass nangootul wax. yamba bu beri bëri bëri la ay police japp ci yoon te jaw nday moko jaay ne auto bi dina joge telle heure fi lay dem fi lay jaar fi lay jaar ma marem fay sall yóndi fa police yi policier yi ñëw oto ñas prip ñu japp ko ne ko ibil ñu gis fa yamba gi ñu wo marem fay sall marem fay sall ne len pass len mako ah, ñu ne dañ la japp ak yamba pa bi ne ko waaw ne ma ngi ne police ñu bala depuis jour boobu maaxi ñas fa la jëbbalu ci makissal parce que moy vie sam yamba def naa nee nañ li ci gémmiñu boroom la daxee dégg ngeen ko lool mu wax wax leen ma ndax loolu yar la ndax teggin la ndax yanu na maanaa ci lenn voilà soxna Cheikh Maye ñax soxla na ma Marème Faye Sall di ko tabaxal kër koo xam bu fotas woon taalibe quatre millions de talibé dans le monde Nigéria ay dëkk yoo xam ne ah dégguñu sax wolof dégguñu lenn ñooy jóge ba foofu di wàcc senegal jox cër kilifa gi ah espèce rebelle bii ñoo ne moom mooy ñëw di fen na ay information la yor loo xam ne depuis sept ans ñoo ngi nii huit ans di fen di kàcceeg seeni information yépp ci seen kaw lay delluwaat xëpp ci waat ci seen kaw fen nañoo fen a fen a fen ku wax ñu ne ak Ousmane Sonko ku ko laal sànku mais moom ma ñuy laal sànku moo sànku tey da ngeen ñuy wax Ousmane Sonko kan la laal moom kan moo sànku ñi ko laal ña nga ca nit day faatu àndul ak moom sax ñu ne noo lim kontoon Ousmane Sonko moo tax mu dee mel ne waa mooy yàlla bu doon yàlla lu tax tawul bu doon yàlla la bu doon dafa sell lu tax muy dem ca kaso ba bu amoon pouvoir rey doomu aadama te xam ne ñi yéen fenkat yooyu ak ñaanal leen yàlla na yeex di ko ni ñu koy suñu bopp waaye tôt ou tard da ngeen fekk ñooñu te kooku laal ñu kenn yàllaa leen indi ci kaw suuf yàlla mooy jël jël si laan saa yu leen saa su ko neexee voilà waaye képp ku ci gaañu képp ku ci feebar ñu ne non dafa laal Ousmane Sonko ku ko laal sànku bu doon ku ko laal sànku moom du sànku <laughs> dana sànku tey bàyyi leen seen caaxaan yi bàyyi leen seen bopp yi ngeen di foye voilà yéen a dégg googu yéen a loolu lépp dinaa leen tegal ci suuf ci premier commentaire bi da ngeen fu gis lien bu bleu bu ngeen ci bësee di ngeen ci gis euh vidéo bu ma defoon ci fondation servir le Sénégal bu marem Faye Sall voilà man néna len bamay wax di woné ay Macky Sall ak ligéyam ak jabaram c'était en 2017 man xaruma ay teer ak ay berté doo ko wax ku nangul loolu moy deug ko nangul moy deug c'est documenté chaîne Khadim Gueye TV bi boo ci bind woon bind ci nga dem nga xool vidéo yi ñu nga fa 33 vidéo laa la wax 30 yi bu ne une temps lay durer chaque samedi laa ko doon def te vidéo bu ci nekk quatre réalisation yu Macky Sall moo ngi ci quatre réalisations multiplier ko par 30 te booba berte amul booba euh, euh, terre amul booba stade Ablaye Wade amul de ca àll balaa commencé ak donc képp ku leen di woon ay réalisation yu Macky Sall fi tey na ngeen ko rappeler opération jant bi dama ko ko tuddi woon espécialement voilà ba ma defee trente yi dama jël ñett déji ko déjee ko soxna président muy Mariam Faye Sall ak fondation Servir le Sénégal fonds yi bi ñuy laaj ñii di wax fenkat yi soskat yi ma dem wax leen fan la fonds yi di jóge et lépp réaliser leen vidéo bi def ko ci ci poof boo ci bësee ah di nga dina la yóbbu ci vidéo ba yow miy seetaan nga mun a déglu fondation ba pour wax la fenkat bii lu muy fen ay Marème Faye Sall def léegi Marème Faye Sall jàpp nañ fecc yàmbaa yow Marème Faye Sall moom mooy décider ah ku ñuy jàpp ku ñuy bàyyee ci yàmbaa ah Marème Faye Sall mooy joxe ay décision quoi pour wax leen ni dañuy fen ba ñoom seen bopp hmm, dañuy gëm li ñuy wax seeni fen bi <laughs> ngi noonu voilà mais xam nañ ne ñoom ci seen bopp que li ñuy wax yanwul maanaa loolu moom moo leen tal léegi nag gis ngeen euh, Kayz Fof euh, di ko nuyu <laughs> voilà kon leen ci lool rek ah, yàgg nga ko def Ousmane nga ca kaso ba lu ngeen gën a fen di gën a sos yàlla di ko gën a mbugal ngeen di gis te du ngeen ci mu coco voilà léegi beneen fenkat bi nga xam bu yàggul la génn kaso muy Cheikh Bara Ndiaye attaqué na Macky Sall def na ci lu mën xam ne Macky yi bëgg a dem léegi mi ngi départ nag ci Amadou baax le futur président incha allah rabbi du Sénégal di ko ñaan man mooy sama bëgg-bëgg moom laay voteel hmm? te képp ku ma gëm bëgg ma bëgg Macky Sall noonu ko Macky choisiré voteelal Amadou baax kooku mooy lu leer parce que kooku rek moo ñu mën a garantir stabilité bi nga xam ne son excellence le président Macky Sall mi ko tànn te defu ko par hasard loolu la bëggal Sénégal tam doon la fay demee donc yow mu yor carte bi ah lu Luddu Bala sant benn bokk yaakaar ñoo ko investir rappelé wul lool voilà te leen wax ne Amadou Ba ñi naan yëngatuwul waxul deful premier ministre la ni ma leen ko waxee ba léegi bis bu campagne bi départ ngeen xam lépp dëgg la son excellence nag ah mooy nekk directeur de campagne am ba mu ko nekkee bu ab lay Wade ak bi yëpp. perte élection musta am li ñu bàyyi xel ci loolu aussi voilà donc Cheikh Bara Ndiaye léegi li ko dese mooy négal bu attaque Amadou Ba commencé parce que ku ñàkk jom ne Cheikh Bara Ndiaye man musuma ko gis tëj ci kaso bi muy deedeelu ay gré de fin nañ ñaan sëñ Muntaxa fu nañu jaar fa bañ dimbali ko sax ko mu génn doon financé ay xale yi taal di yàq te nag ab sëriñ la waaju tekkiwul dara fenkat boo xam ne moo ci togon fi neen yor na ndom bo xamne ci si kum ko jox do duggu kasso man dina am ndomba buy jox <laughs> di ko jox ni ñi du dugg kaso mais man mu yor ndomba gi di ko ma tag yalla wer na de waaw Cheikh Bara ndjay fu mu jógee bu yàggul ak ñàkk hmm bañ nan mi ci duggu dind dund ak de mu génn lam ñam di reey donc bu fi waxate bañ tejaat ko nak sénégalais def na ñepp ni ne wa waaw kay gannaaw léegi dénoncé ak fen ak sos moo fi nekk gis ngeen Moussa Diop li mu fi defoon génn di sos di fenal Macky pour yor bës bi gis ngeen est-ce que waxat nañ waxu Moussa Moustapha Diop ñooñu di sonk sonk lu quoi li ci jig Ousmane Sonko jigu leen ci Moussa Bukan def na tout pour ñu tëj ko kaso pour ab ñu mel mais bugan ni ngay def sax mo tane au moins yaa ngi ci biti sax njaboot dila gis Moussa Diop ma nga ne doon wut bës deux jours trois lañ bind ci moom waxatuñ ci mom ñi ngi wax ci ay Sonko dana bok ak du bok delu ci na Ousmane Sonko ñak jom déglu len Cheikh Bara Ndiaye fen yi muy fenal Amadou Ba nan reggae man la nak hein mo fi doon indi Bob Marley di n'importe quoi xam nga bu ngeen rappelé woo bu yàggul fenkat journaliste bi nga xam dafa waroon nekk ci les plus grands ñu waroon ko xoole ko ay Mamles Kabara yàlla na ko yàlla yërëm te yeexe ñu ñuy ay journaliste de référence muy Pape alagna Niang xooleen Pape Alé Ousmane Sonko xooleen ni muy ni muy suule ndaanaan quoi xooleen ni mu réduire ay Pape alagna ay mustapha Diop yu wal fajri bi ñom baara nday ñi nek ak espèce comédien bu bobu sanjo bu gis nga ñak fay da ñak xorom comédien bu doon reeloo dem ba baara nday mo lay reeloo tay deglu len ni ko baara njaay di reeloo hmm? après ngeen deglu ki fenlo cheikh baara nday man len pap ala ñam bi loon wax ta ye ci gënaaw déggoon gu neen le général Moussa Fall amna keuru 6 milliards bañ démé découvrir ko benen Moussa Fall la du won général bi xamane koku korek rek ñaata ati kaso la waron teud Cheikh Bara ndjay nee na ah, Amadou Ba hmm, rege man la won mo fu indi Bob Marley mi ngi né hein ah, amoon na ben Amadou Ba animateur bu yag at ma Ousmane Sonko juddo di 74 bobo mi ngi def émission bu tuddu Carrefour nek à la RTS ahmadou Ba mu ñew ne Amadou Ba mi ñu tok fa di cekkantoo di relo mel sen morom mel sen seen golo gu ñuy foye quoi ñak jom ñak xorom ñoñu quoi xol leen cheikh bara ndjay ngeen ni ko waji fen lo, buñ ci joge dinaa leen wax ban ban découverte la ci def ngeen xamne lepp fi lay leer gis nga fen da ngeen ko bayyi billahi da ngeen bayyi katch sénégalais ngeen di foye xol leen sagaru nit bi espèce serigne bu xawma way serigne sëriñ <laughs> kat bi quoi garabu garabu bi après ñew maanaam ci année quatre-vingt ya Amadou Ba nekkoon responsable Moustarchidine wala Moustarchidaat ci Grand Dakar ah bon waaw après mu bàyyi mm-hmm. quatre-vingt waaw bi mu bàyyee waaw quatre vingt xam naa di nga ree bay bëgg a dee muy def reggae muy def reggae Amadou Ba ah waaw reggae man la woon de ay <laughs> quatre-vingt-un ba fi Bob Marley waree ñëw far gaañu ñi ko waroon a indi Sénégal ci laa Amadou Ba bokkoon Amadou Ba Amadou Ba ñu def na reggae ma jàmbal yëpp lool bind ko moo tax téere bi li ci manqué daa bari. amuñu fa reggae ba la reggae. xam nga nu mu tuddoon. nu mu tuddoon mbiido mbiido. <laughs> mbiido la tudd. ama boo ko bëggee weddi nga laaj ko nga laaj ko Amadou Ba. ah non non ça naa reggae naa andi na fii wayleus. les wayleus wayleus ak Pitatos. Pitatos na leen fii Sénégal booba moom mi ngi ci reggae bi. Amadou ma loolu. avez bien suivi gis une euh, vidéo pour ma Boucher dit Cheikh Barre di et que Amadou Ba de <coughs> Bob Marley hmm? ñu toog nous ci plateau di ne loolu mu wax yëpp ay fen la je vous jure Cheikh Bara Ndiaye ku ko dàq fen amul ci àdduna tout ce qu'il vous a raconté ci loolu mu wax Amadou Ba à propos de Bob Marley des Wailers n'est-ce pas de Pitotoche dara dara dara du ci dëgg wallahi azib lépp ay fen la parce que ñun daf ñu fekk vous savez Amadou Ba boobu muy wax dafa xamul walla day jéem a xam-xam lu xoolal ba mi nekk direct ci sa portable sa portable xoolal donc Amadou Ba boobu muy wax Amadou Ba boobu muy wax. naan day reggae daf fi bëggoon indi euh, comment il s'appelle encore Bob Marley après mu décédé et cetera reggae man la woon dafay fen dafay duul wallahi azim Cheikh na Cheikh euh, Bara Ndiaye moo mën a fen moi je suis de l'opposition et je suis réuniste mais am na loo xam ne su ma ko gisee dama koy attaqué mais day fen parce que ñun ñii di wax ak yéen

bi nekkoon animateur bi nekkoon animateur Amadou Ba boobu muy wax mooy Francis Cheikhna Ahmadou Ba il est né en 1949 décédé en 2005 moom animateur la woon radio télévision Sénégal mu nekkoon le chouchou ak ñoom Youssou Ndour ak Omar Ben, etc mi ngi commencé mi ngi commencé liggéey RTS en 74 74 Ahmadou Ba boobu muy wax moom ak Cheikh Amala Doucouré Cheikh Amala Doucouré moo daan euh, animé émission reggae yi Amadou Ba c'était surtout ci euh, ci variété variété la daan def amoon na ñaari émission faar yoo xam ne ñun dañ ko daan déglu muy Carrefour ak Inter 12 h 13 h la ko dan def variété émission variété la dan def euh, avant 13 h mu dor mu door euh, musique ay salsa ay musique reggae ay pop musique hein ay ay ay sound ay soul et cetera la dan tek c'était un grand animateur kat yu bari fi muy ay ñom Youssou Ndour ay ñoy Omar ay Omar Pen les anciens ils ont Ismaïla Lo ay ñom babu Mal daf leen daan accompagner ñu mu leen à yi ngeen di ah, euh, comment dirais-je ces jeunes là qui sont aujourd'hui yoré ay ay ay studio etc. tout se faisait à la RTS pratiquement et c'est lui il était un spécialiste Cheikh Ahmadou Francis Cheikh Naba koy wax Ahmadou quand le Cheikh Bara Ndiaye djel jaawale ko ak Ahmadou Ba ministre Ahmadou Ba boobu moo def émission reggae mom ak Cheikh Amala Doucouré temps ci la ñoom ay Claude Guèye ay ñoom euh, Michael Souma ces grands animateurs ñoo nekkoon à la RTS ñoom ñoo nekkoon à la RTS de grands animateurs non c'était de grands animateurs radio. confusion bi foofu la nekk waa ji xamul si ngeen Cheikh Bara Ndiaye bu ngeen ko toppee wallaay azim nit kooku ku ku bon la ak a Amadou Ba musul nekk euh, il a confondu Cheikh Ahmadou Cheikh na Francis Cheikh na Ahmadou Ba bi daan animé RTS émission inter diggante entre avant le journal de 13h et après le journal ak émission Carrefour du mu def moi je le connaissais parce que daan ñëw il fréquentait une maison là. Hier a gisal seen bopp yéen a déggal seen bopp Cheikh Bara Ndiaye gis ngeen <laughs> di comédien bo xamné ne garabu garabu légui mom mo lay rélo quoi mo la gëna nek sax comédien actuellement quoi. xam nga sos bi ñu ko sos bu ko Amadou Ba toppoon tey dana mel Ousmane Sonko ak Mame ñu jëlati ko dóorati ci kaso ba mu dee fa ñàkk ak njabootam ca ay fen ndax bëgg bës wut bës sagaru animateur yooyu nga xam tekkeetuñ dara mënatuñ amuñu lenn lu ñuy def waa ji lañuy ñuy ko quoi te bu kaso amee moom mooy dem tëdd ndeysaan mais yërëmul bokkam te ñoom ñii yërëmuñ ko sànjoogu amul yërmande ci waa ji ngay kàcc loo fen loo nga ko ba ñu dugal ko ci kaso te danga ko fen loowaat ba ñu dugal ko ci kaso léegi nag li ci gën a gaaw mooy dama leen di woon Amadou Ba ba du waroon indi Bob Marley parce que Amadou bab mi dafa naan ba Bob Marley dund ak déplacement Bob Marley millions yi ci nek Amadou bab bobu dafa ma ngay jang amu donc Bara ndjay da loolu rek waron ngeen ko ne da ngay fem voilà dinaa leen woon animateur bi nekkoon ala RTS ok di jéggalu Youssou Ndour parce que dina ko won image bo xamné ci si xalé la sax mom il était jeune waaw boobu bi ngi commencé carrière internationale hein? ah Peter Gabriel boobu ñëwagul sax Sénégal ok donc ngeen xool ko kooku mooy Amadou Ba bi muy wax animateur bi instant il était populaire donc mënoon na indi artiste bu ne à travers sponsor yi mën a am wala ay ay ay ay producteurs yoo xam waroon nañ ñëw jaar ci moom amoon influence boobu pour indi leen mais defe naa Amadou Ba mi ñu gis. suñ premier ministre bu baax bi dafa naa ne taloon na leelu ay Bob Marley ko gisuma ko sax waaw moo tax sax ma sol Jamaican colors bi ngeen gis vert rouge bi pour fenloo gën a fenloo seen waaye yow garabu garabu boobu kat ci kat bi taxaw ne Ousmane Sonko buñ ko dugaloon ci avion xamuñ fu mu jëm ignorant la xamul dara ne leen président Gambie tooñ sax président Gambie di ko tëkkaleeg Ousmane kooku rek la tane quoi. kok mo ñew fi tay ah ki loon taxaw ne nañ ma yobbu lendi na ngeen ma déglu dana ko layal layal moy dana fena fena fena fen ba setal ko kooku moy taxawat fi di fen espèce comédien bee tok di ré di ko ba muy sosal ay nit buñ dugulat ko ci kasso bi donc rappelé won bis buñ ne capati baara ndjay yobbu ko ah, bu fi kenn génn naan nañ ko dimbulé nañ ko yërm na yërm bopam fenal doomu adam nit munu ci tedd guddi ak bëccëg xool leen vidéo bi ngeen xam kan mooy Ahmadou baax boobu Carrefour la doon def émission bu yàgg boobu ay ñoom Youssou ñoom euh, euh, Ndom si yàlla coon ñoom Baba xam nga euh, ñoom ñoom Omar Pen ñooñ ay ñoom Ismaïla Lo seen ay temps ba ñuy nekkee xale di débuté boobu la nekkoon animateur bu ngand voilà kooku nag la jël tey dégg ko comme ni leen Pape euh, Pape Alé Niang waxe woon général Moussa Fall këru 6 milliards muy kat ci kese beneen Moussa Fall la woon Ahmadou Ba mii di suñ premier ministre bokkul ak Ahmadou Ba mais nga xam ne animateur la woon Cheikh Bara Ndiaye sa kat yi dafa doy j'espère que waaye bu noon premier ministre dama koy porter plainte ñu laaj ko yeneen 200 millions fen yoo xam ne gannaaw Sonko dana fay 200 millions mu fay loolu deux cent millions da nga tëj sa gémmiñ tam may dem jaay sa sunguf yooyu moo gën ci yow xaalim Gaye TV la tudd bocc bu ñu woon nañ ko def fii seen fen yi duñu leen bàyyi dara jàll fi élection yi nag won nañ leen ko ci législatif yi yow mu yor sa carte xamal koy jox réew nii won nañ la ñoom ñooy kan ak lan lañ mën lii ma leen war rek lañ mën ak ñi ànd ak ñoom voilà parce que lii lañ defalee moom la ñuy jëlee réew te réew kenn du ko jëlee ci lii expérience Sénégal dafa toll ak pétrole bi ak gaz bi di ñëw hmm? ñëpp soxla ko bëgg tas suñu réew mi xam leen ku ngeen jox seen carte bi seen vote boobu na nekk vote bu am njariñ sinon ëllëg billahi da ngeen ko rëcc te boobu rëcc dana weesu ba ci fan yi wax day am coow saaga amu fi yar ak teggin boo ko deful bloqué sa mam signalé sa mam man soxlawuma seen rakaay boobu wutuma ay vie comme ay Aïssatou Diop Fall soxlawuma leen te pourtant ñi may setan te daañ ma gën a setaan incha man nit ñi laay waxal borom xel yi ku ko mënul rombal avancé nga yoxasu soxlawuma la fii soxlawuma sa abonnement soxlawuma sa vie soxlawuma sa dara wax day jeex caaw Cheikh Bara bàyyil kàcc leen laaj mag ñi seen xalaat ci waaw mag daal mën na bàyyi cim réew Chers amis, auditeurs de l'Office de radiodiffusion télévision du Sénégal, nous vous disons bonjour et nous nous faisons le plaisir de recevoir, comme promis, très attendu en direct, Youssou l'étoile de la Médina. Alors Youssou vous revenez et vous rentrez d'une tournée triomphale en Europe avec euh, une célèbre vedette de Londres, Peter Gabriel. Peter Gabriel, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui dans votre démarche Disons que c'est euh, quelqu'un que j'aime bien, que j'ai connu il y a très longtemps. Mais c'est quelqu'un aussi qui, que j'appelle un, des plus grands promoteurs de la musique africaine euh, et puis de la musique sénégalaise en particulier. Je pense Peter est, pour ceux qui sont branchés musique euh, extérieure, je pense que c'est l'un des musiciens les plus connus dans le monde. Et j'ai participé dans son disque saut qui a fait la une partout dans le monde. Et j'ai fait la première partie de sa tournée. Et ensuite, je chantais avec lui un morceau qui s'appelle euh, Ignores Je pense aussi que c'est un mec très sympathique. Il a beaucoup aimé le groupe, il a beaucoup aimé le Sénégal, il aime beaucoup la musique en général au Sénégal. Et j'attends avec impatience son arrivée ici. J'aimerais bien un jour le faire jouer au Sénégal. Vice-versa. Il faut que j'ai le courage de le <laughs> dire maintenant. Parce que les gens euh, ne comprennent pas que actuellement, moi, ce, qui m'intéresse, euh, c'est d'avoir une carrière internationale. Cette carrière internationale sera basée par la musique roots que qui m'inspire à partir du Sénégal. Je ne gêne pas Youssou Ndour de Super Étoile, c'est Youssou c'est rien que Youssou Il y a d'autres qui sont derrière. Ouais, disons bah, n'occupent pas l'affiche à cause de vous. Vous, vous leur prenez tout. <laughs> non, attends, parce que c'est les gens qui ne comprennent pas que le Super Étoile, n'est pas Youssou C'est les musiciens, c'est les gens qui, sont au bureau, les gens qui, qui écrivent, c'est les gens qui, ont le contact avec, avec la presse. C'est même des gens qui sont en Amérique, c'est des gens qui sont à,

fa nga koy waxee yàlla nay palaasam ña koy waxal yàlla nañuy borom wax ja lu ci manqué noppi te jullit du fena ah. jullit dana jikkoo jikko bu nekk moom des fen illal kadiba jullit du fen jullit du war moo tax yàlla na ñuy yàlla jàppale